Sall ndax li tax gisuñu ko mooy ki nga xam ne moo fi toogal président Macky Sall ñun sax xamuñu ko fii si Daaru Minam moo tax ñu bëgg a takku nag incha allahu rabbi fas yéene ànd ak yow liggéey bi ndax Daaru Minam ak gox goxaat yi nga xamante ne si wër nañ ma ndax tey su ma nee Daaru Minam rek ñi si des parce que maanaam Touba lu tolloog fanweeri selil dama ko fee samp kon damay wax ñëpp kon ñi nga xam ne Ngiraneen Madiana Daaru Xuddoos Jaxaay ñi nga xam ne samay selil lañ macha allah nekk ay femmes de responsable Moussoobe ñoo xam ne ñoo ma dooleel nekk sama ginnaaw tey jii man su may wax damay gis sama bopp ne honorable député Ndeye Fatou Dieng ndax koñ bii ma nekk di Darou Minam dama fee def lu rëy nag macha allah parce que Darou Minam gi dama fee samp ay kees di leen jàppale di leen jëndal ay bale di leen may ay omo di leen jox ay saabu di boole jigéen ñuy liggéey di leen wutal ay frigo lu ne defal naa leen ko sama dooley bopp dañoo fas nga jàpp ñu jàppale la yow tamit nga jàppale ñu ndax jigéen ñi da nga leen di woo ñu ne la ñun duñ dem wuy ji ndax dañoo wuy ji ba sonn kon naxe yi dañ cee sonn incha allah rabi seen xel nag na dal ndax seen Galas Kalsom mii même bu dul politique nit social la nit la koo xam ne kuy jàppale doomu aadama yi la te loolu soxnaa moo ko seere ci man soxnaa moo ko seere ci man soxna mayam sëñ Abdou Karim Mbacke ñu am si moom yaakaar xale koñ bi macha allah ma woote di nuyu honorable député Arouna Sow mi nga xam ne daf may jàppale ci social bi may def mu yebal fi ndaw loo xam ne moom monsieur le maire euh, Gandior macha allah ñu ngi koy sant baax di ko gërëm ndax taxawaay bi nga xamante ne si am na social bi nga xam ne ñu ngi koy def kon suñ ñu ngi leen ñaanal nga am ndam nga xam ne mbooloo mu bëri moo topp suñ ginnaaw macha allah mënuñoo xam sax duñ toll fu nekk nit bi jóge ñun mënuñoo sax seeti mbooloo mi ñàkk nañ dem si mbooloo dañoo fay ay taxi nag may bëgg kon ñu ngi sàkk si yow bu ñu mënee am oto nga wutal ñu oto ñu siy dox seen i course ndax seen i mooy suñuy course ñuy sàkku nag si koñ bi ñu dëkk ak yeneen gox goxaan yi nga xamante ne dañoo manqué bi ngeen ñëw yaakaar naa da ngeen a teggi ba sonn ndax fii yëpp am ndox la kon loolu maire bi lañ koy lancé muy Abdoulaye Ka nañu dimbali ci suñu mbedd yi defal ñu si ay xeer dañu ko sëkkal duñu jàppale si coupure ndox yi loolu monsieur le maire lañ koy parce que loolu liggéeyam la ndaxte ñun dañoo musu ñoo gis xamuñu ko mais chaque jour day gis ñuy laaj suñuy message chaque jour bu ñuy gis ci internet bi ñuy kaas suñuy doléance parce que suñuy àq ak suñu yelleef nag maanaam ñun dañ suñuy droit dañu koy kaas parce que dañoo am droit fii si dëkk bi dëkkub bi kon buñ ko tegee si loxo war am liggéey bu rëy mu liggéey ak ñëpp yaatal ñun ñëpp ñu mën a ubbeeku suñuy buntu seen galas mbooloo bi nee na dañoo bëgg ku leen jàppale jigéen ñi nee na dañoo di ñëw di jigéen ñi nee dañoo bëgg yëg di yëg si avion yi di ñëw jigéen ñi nee dañoo sonn si xoolum gerte bi dañoo sonn ci waas jën yi jigéen ñi nee dañoo sonn di toog di jaay noflaay di jaay tege-dege nee dañu koo bëgg weesu. Blaise boo gisee ñu jóg ñu jàppale président Macky dañoo am si yow yaakaar ndax ñun xamuñu président Macky Sall tey suñu Blaise lañ xam. tey suñ Galass Kaltoum lañ xam xamuñu président Macky Sall suñ Galass Kaltoum lañ xam kon nañ ko jàppale mu am ndam. soxna Ndeye xam nekk sa gannaaw te liggéey boo xam ne bu tay nga ko tàmbali bu yàgg la ñu mu nosoo ak ñu mu tënku gisante woon nañ. ci ñu ndigalal kilifa sëñ Abdou Aziz ak sëñ Maodo Aïcha ñu boole ñu nga jàpp loolu ko sàmm ko ba lii fi dox tey gën a firndeel sa taxawaay ñoo ngi lay yëgal ne nangul nañ la engagement bi nga xamante ni engagé wu nga pour ànd ak ñun pour ñu jariñ réew mi mais rawatina département de Mbacké mais taxaw ci gannaaw son excellence monsieur le président Macky Sall ñu jàppale ko ci liggéey bu rafet bi mu def ci Sénégal mais rawatina ci biir Touba waxal nga ko sa bopp amul benn secteur booy gëstu ci réew mi boo xam ne jëf ko loo xam ne nit mosu koy jaar ba jëf ko du secteur mais rawatina ci Touba jëfam yéen ko jëf yu nit mën a teg bët la te kuy gis dañuy wan yaa gisal sa bopp borom yaa xalaatal sa gis xam ne lii def lu aw yoon la kii matal gunge la. ngir mu àggale liggéeyam bii mu yore ba mën a tàmbali leneen te loolu li ko koy may ci lañu toll mooy taxawal ensemble boo xamante ni mooy ak yoon ak ñeent bi Sénégal amee république ak léegi ñu toll ci deuxième tranche campagne électorale législative sa taxawaay ak sa engagement ak ñi nga àndal mu mën ci apporter lu bari loo ni vraiment ñu ngi di ci soññi jigéen ñi nga àndal ak góor ñi ñu gën a laxasaayu ànd ak a ba bu ñu àggee incha allah au 31 juillet bi ñu nekk suñu borom defal ñu ndam ci biir Touba loo xamante ni ndam lu leer naññ lay doon ndam lu set wecc lay doon ba loolu mën fee jógee jariñ li ci kaw ba Sénégal yëpp ñu mën cee am majorité incha allah jox a président ak Macky Sall ñu gën a mën a taxaw liggéeyam ñoo ngi leen sant di leen gërëm di gërëm képp ku góor ak jigéen nag ak yow asalaamaaleykum wa rahmatulah. ci biir loolu aussi xam nañ liggéey wax naa ko léegi sëriñ Issa xam dana ci jokkoo ak yow am na projet yoo xam ne taxaw daar daar bala élection yi ngir financé nañ ko ngeen liggéey bi xam naa dana ci jokkoo ak yow boole la kuréel gi ngeen ko loolu wax la ni doxe suba incha allah gis ñi defar projet yi ñu tàmbali leen suba incha allah ci bi. lay àllarba alxames ca kanam xale yu góor yi fi nekk dañoo booloo def mouvement Samm ca kanam yàlla xam na ni boo fi ñëwoon ci tàkkusaan sëñ bi sa yaram day daw. ak tali bi ba mu daj doo fa gis pharmacie amuñu centre de santé tey ku fi jigéen ku fi feebaroon boo amul oto dañuy abib sareet yab la ci dañ lay yóbbu ndaamaatu wala ñu yóbbu la sump kañ ngay egg oto mbalit boo xoolee tali bi yëpp mbalit lañ ko def oto mbalit amu fi saam li fi manqué bari na te am nañ yaakaar ci yow am nañ yaakaar ci yow mais buñ la diisee soxla di nga ñu fajal mbàkke te bu soobee du ñu daw du ñu daay suñuy carte d'identité ku ci nekk da koy indaale tey mu ngi ñu yor mbàkke su su am na nag ñoo xam ne dañoo bëgg a changé seen dantante ñu bari wax nañ ma ko ma leen bu sëñ bi dikkee dinaa ko koy yeggee ñu bari ay soxna yu bëree bari am na ñu amagul sax carte d'identité te bëgg nañ ko bëgg nañoo voté ñenn ñi seen carte d'identité jeex na ñu bëggoo changé ndax dañoo bëgg a voté ci voté yi bëgg naa nga jàppale ma ci parce que diis nañ ma ko ma dellu diisaat la ko. en tout cas mouvement Samm ca kanam ñu ngi ci naaw bu soobee yàlla na sa xel dal sëñ bi ay jeunes lañ te dañ ni la wan ma sa ndaw réew ma wax la sa ëllëgu réew Samm macha allah li fi nekk ci kër bari na. buñ dajaloo ba boole seen bopp def mouvement sàmm ca kanam bëgg nañ ko leen jàppale. fii bu bu bu tojoon tey ma macha ma subaana laa li fi xew kenn du ko xam ndax lëndëm na xoolal sama ginnaaw doo gis dara ndax lëndëm amuñu courant moo tax ñu dalal la fii bi nga ñëwee gis nga fii ni mu lëndëmee gis nga baas bi ni mu lëndëmee tey bu ñu uti woon ay làmp taal ko dañuy wane lu nekkul ci ñun te dañoo feebar. hôpital nag boo fa demee médecin bi bu ko nëbb sa feebar boo ko nëbbee sa feebar du xam ni mu lay faje waaye di wax ni Mbàkke kontaan nañ ci ñëw gi dama bëgg lii leer na yéen jigéen ñi sas nañ leen ndax seen moroomu jigéen la ci def muy Aminata ture ñëpp xam nañ ko yaakaar naa ni kii Mimi Touré mooy na Touré mais benn tur bi la buñ ko ci defee sas nañ jigéen ñi ku ci nekk jàppee ko comme sa yëf beneen nataal bi dafa am solo mooy symbole la fas lañ ci def fas symbole la nit ku baax ku ne war nga fas Macky bi mu bëggee jël réew mi sax daa war fas ba dugg pale kon damaa bëgg ñëpp nañ yëg ci fas bi ñëpp nañ yëg ci ñu dem assemblée nationale Macky Sall gañewaat pour cent. di jéggalu guddee gii ñu guddee te dara waralu ko lu weesu. fu ñu dem nit ñi wane seen xerte ak seen am yéene ci lan am yéene jàppale liste bi ñu nekk muy liste benn Bokk Yaakaar ci département de Mbacké loolu rek moo waral suñu guddee waaye ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci mobilisation bu rafet bi nga xam ne ñaari fan yëpp yéen a ngi koy def muy taw ñuy am ngant tey ñu ne ginnaaw taw bi séwét na lu mu guddi guddi ñu ñëw ngir wan leen ne yëg nañ li ngeen def engagement bi ngeen joxe aussi ci ànd ak ñun am yéene ak pas-pas ci bu ñu àggee le 31 juillet woote li su Benno Bokk Yaakaar bii nga xam ne mooy tax son excellence président bi ki Sall mën a àggale ab liggéeyam bu rafet bi mu tàmbali ci Sénégal mais rawat na ci Touba. ku ci nekk mën cee teg sa bët ci fànn yëpp li ñu fi constaté nag seetlu ko te bokk ci seen i yitte te mu wér ñu ne ñun mën nañ cee taxawal suñu bopp daar daar balay élection yi defar ko mooy dina am ku ñu leen boole léegi bala ñu fiy jóge bu subaa incha allah danañ leen may fukki lampadaire dikk montel leen ko. suba incha allah dinañ leen booleek booleeg euh, ma sàmba jóg mii. dana fi ñëw ànd ak électricien bi nga xam ne moo am liy yéeg ci ay poto jox ko fukki làmp mu ñëw xool poto yi ñu ko war a def mu monter leen ko muy jëf ju njëkk la ca des mu jëm ci wàllu jigéen ñi waxtaan naa ceeg soxna Ami Xuma dana waxtaan ak yéen ci li ñu ko wax ci loo xam ne am nañ ko ci financement bu ñu leen mën a jàppalee daar daar fii ak alxames incha allah balay élection yi ñu indil leen ko teg seen loxo loolu nag suñu mën-mën la ak feeñal suñu yéene suñu diggante ak yéen kon lii tax loolu leneen la ngeen soxla te état di ko def ngeen jàppale son excellence jàppale ñu aussi ndax ñun doomi dëkk bi lañ am yéene taxawu dëkk bi ñu bokk ñeen xam ñu ñu xàmmee leen ngeen ràññee ñu ñu ràññee leen nekkuñu fi di déglu ay wax yu jóge ci àll bi yuy dugg ci ay bopp di ko funaxal wala di ko nëbal sunu jëmb la ñuy indi yëkkati sunu kàddu questionné li ñuy wax ngeen xam ne lii lañ bëgg feeñal tam sunu yéene ci fii ñu toll kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla lii ñu bëgg te bëgg ngeen taxaw ci ngeen joxe seen engagement le 31 juillet incha allah seen boor bi ñu mën fee gagné à pour cent jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatulah. askanu Daaru Salaam ñu leen nuyu baax leen siyaar. Serigne Galas ñu ngi lay dalal jàmm fii ci Darou Salaam. Darou Salaam daal ñun fekkee ay gor lañ fi war a jàpp élection yi président gañ ko ndax lu tax jumaa jaa nga ne li wër penc mi ko dem gis na télé bi commencé koo liggéey te muy dëgg ju wér le maire Galab mi fi nekk ñi ngi am ci moom yaakaar ci ay lamp ak yu bari yu mu fi wax yoo xam ne bu ñuy def campagne maire yi wax na ko fi te am nañ ci yaakaar kon nag ñun li ñu war mooy dañoo ne ci contrat bu ñu xullee élection yii ba yeneen parti yi gañe ko lii ñu ne mébét Daaru Salaam di ko fa yaakaar dara du ci sotti loolu mooy dëgg mooy li wér nañ def suñ képp lay kattan ba APR Macky Sall am majorité assemblée nationale loolu mooy dëgg loolu mooy wér mooy li wér loolu mooy li ñuy jariñ nañ def fu laa fayda Ousmane Sonko bokkul ci élection yi li sa kéem baaxul mm, li baaxul dañ koo resté bokkul Abdou Mbacké Ndaw moo fi toog ci maire bi juróom-ñaari at deful Daaru Salaam dara ginnaawal Daaru Salaam ci côté yëpp li mu wax ku nekk Daaru Salaam ma nga ci seere sosuma ko fentuma ko maanaam bise bii ñu mujj a ah, ñu mujj a woote nii nii maamun mais am na lisi bi fenn fu ñu kosee Daaru Salaam mun ne lii Daaru Salaam jëm amul amul kon nag kooku bu ñu xullee ba tayaat ko fii mooy suñu toroxtaange ndax juróom-ñaari at bu ma ko yor ab dëkk defaroo fa dara dem nekk di naan da ngaa defar ab dëkk loolu mënut a nekk c'est impossible way nañ yeewu ku la jox ku la jox ndékki bu yàlla da añ wan koo gëm ndax tëli baa nga nee ñu commencé di ko defar ñi ngi ñaan nag mu yokk ndax bëgguñ benn tëli donc Daaru Salaam ñi ngi ñaan yeneen tëli am fi may li ngeen di wut bu ngeen demee ngeen di gën a ges waa Daaru Salaam bàyyi ko xel nga nii bi ñuy ñëw liñ jot a jaare ko si ñëw dara baaxul te wax dëgg yàlla nag ñi ngi ci am yaakaar ministre sàmm njóobeen ka ñëw na fi ànd ak DC Galoba teg nañ pose première bi nangam mais nag ba tey ñu ngi gën a am yaakaar bëgg nañu dolli yeneen bii fi nekk nu mu gën a gaawee ci liggéey bi moo ñu gënal ndax instant bii nii nii nii fii ba Mbàkke ay pax kenn mënu ci jaar loolu mooy mooy dëgg dëgg tamit roobi nopp faaw ñox ko nag lu ñu lañu ànd ak yéen nag dañuy wax dëgg nag moom ñu mën a def ba ñu defar ñu bii ci nu mu gën a gaawee yeneen yi war a amaat tamit ngeen fexe tamit ñu ñu ñu jot ci yooyu jigéen ñi jàpp leen ci financement nu ñu mën a liggéeyee si suñ ci kenn soxna Rama Cissé moo fi yar mbootaay ñuy dajee di def seen yooyu ñuy def nag tak ku ñu jox kii jox kaa santaat baax nag sa yi ji seen Seexuna Mbàkke jàmbaar am na taxawaay bu rafet ci liggéey bi faaw daal ñu sant mboolem Daaru Salaam mépp soxna Rama Cissé mais tamit wax dëgg yàlla moom jàmbaar la wax dëgg yàlla fii daal feesoon na dell ñu ngi lay sant bu baax di la gëm ci teewaay bi sëriñ bi ñu ngi yëkkati nuyoo bu sell ak délégation bi ñu àndal teew fii ci suñu kër te li ñu nekk rek ci ngeen nekk mooy àndandoo nekk benn war a taxawu gox bi ñu dëkk gox bi mooy département de Mbacké war a taxawu réew mi ñu dëkkoo muy senegal yàlla dogalit ñu ànd ci kilifa goo xam ne mooy président de la République Macky yore réew mi ñu dénk ko ko bi ñu ko ko dénkee ak léegi kenn ku ci nekk gis na taxawaayam ak yéene mais ak jëfam ci Sénégal gi yëpp nag waaye daf ci rawati département de Mbacké bi ñu nekk wax ngeen ko ci seen ay biir yi wax bu ñu koy xayma rek fi ñu nekk muy Daaru Salaam bi Sénégal amee indépendance ak léegi yàgg na jàpp naa ni ñetti président jaar nañ fi ne ngeen benn télé fi am te boobu ak léegi yàgg na te jàpp naa ne moom bi mu yéene nii daar daar ñëw nañ fi te xeer yi di ko tàmbali moo ëpp booba te incha allah mooy gën booba ku tàmbali liggéey boobu nag ci dëkku maam Cheikh tàmbali yeneen liggéey yoo xam ne yegg na ci biir Touba di dëkkub Cheikhul Khadim bi sumbaat fa yeneen yoo xamante ni ña ci liggéey bi te am na yéene yeggale ko ba sumb yeneen ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne ab dëkk dana ko yittewoo naam Touba am na lum ci jot a am am na lu ci des li jot a yegg moom ci xalaatam ak bëgg-bëggam day mel ne li muy waaja tàmbali la gën a def yitte ci bàyyi xel na am na lu mu def ba pare ndax dëkk ba mu dayob dëkk bi moo toll noonu loolu nag li ko koy may ba tax li mu jot a def ak li mu yéene mu mën a yegg muy am assemblée boo xamante ni bii ci bii ñuy waajal muy fukkeel ak ñeent mu am ci majorité ci département yi ci Sénégal yépp mais rawatina département de Mbacké sëriñ bi wax nga ko léegi enjeu wu chef d'état bu yore am réew wara a définir politique buy doxal réew mi te majorité bu doy amu ko assemblée bariwul njariñ ndax bu boobaa réew mi day bloqué te fii Sénégal toll ak sunu mag ñu baax ñi ak seen ñaan ak fii réew mi toll ak meññeent yi fii feeñ te ñu war koo taxaw lépp réew mi jariñoo ko fu fi yokk amoon ci lu baax lu fa waroon a nekk gën a yokk te mu nekk ci liggéey boobu li ko koy may mooy élection yi ñu nekk kenn ku ci nekk jël sa xel ak sa xol teg ko ci bëtu li mu jot a liggéey rafete ko njort ci yéeneem ak bëgg-bëggam ci réew mi kon kenn ku ci nekk am nga pour jàpp ci list yi bii ñu nekk muy département de Mbacké te yéen yéen ci nekk ndax seen njaboot ñoo ci nekk Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma ak honorable Makhtar Diop ñoo nekk ci liste national bi boo ñëwee départemental bi ñu jël ñu def ñu tëdd liste bi euh, kon mel na ni diine ak mbokk feeñ na ci liste ba bu ñuy xalaat ay ndaw mel na ne Mohamed Cissé ak soxna Roqay Diouf bu Mbàkke mën nañu représenter ndawu góor ak ndawu jigéen bu ñu xoolee àll bi ñu naan leen monde rural baykat bi sàmm bi ak lépp lu ci aju bu ñu xoolee Cheikh Bara Gueye jàpp naa ne mën na leen fa représenter bu ñu xoolee sunu wayjur jigéen yi muy bàjjen yi ak wayjur yi xool soxna Mariama Ndiaye soxna Mariama Diallo madame Ndiaye jàpp naa ni mën na leen représenté kon mel na ne tànneef gi am na lu muy représenté ci ni dëkk bi demee muy Touba ak Mbacké mel na ne tànnin wi macha allah ñëpp rafetlu nañ ko ay nit nag bu ñu àndee di rafetlu loo xam ne la koy mottali ba lam ca yéene wala mu bëgg ko jëf ci mën a yegg mooy bu ñu àggee ci fanweeri fan ak benn ñu naan ko 31 juillet bii ñu nekk ñu mën a am élection yoo xam ne dafay leer nañ mais ñu am vote bu yaatu ku daawul woote woote te li koy maye mooy seeti nit ñi ci seen kër yi soññi leen guddi ak bëccëg suba ak ngoon mais aussi gën a waxtaan ak ñoom ci politique bi nga xam ne son excellence président Macky Sall yéene na ko ci Sénégal am lum ci jot jëf am lum ci war a àggale lan mooy tax mu mën ko mu dugg ci xelu nit ñi ak seen bopp ba ñu mën a xam ne lu rafet buñ doon xalaat naan lu rafet am na loolu lu rafet ca lay tàmbale ca lay yem lu baax waxaale wuñ ko ndax lépp qualité la réew mi toll foo xam ne am na ñoo xam ne réseau sociaux yi la ñuy jariñoo nekk ci gannaaw xamoo sax biñ koy def ndax suturawu nañ di yëkkati ay kàddu di ko teg ci mag ñu baax ñi di yëkkati ay kàddu di ko teg ci njiitu réew mi mais di yëkkati ay kàddu yoo xam ne rafetul nit ñi xamuñ ko woon miinuñu ko woon mosuñu ko dégg tey sa njaboot di ay gone yu tuuti sax ñu ngi dégg loo xam ne yow bi ngay tolloo ci ndaw daawoo ko dégg ci wax joo xam ne booy xool nit lañ lay wax du doon lu rafet du doon lu baax te loolu jàpp naa ne yarewuñu ci du yarub lislaam du yarub diini mais du yaru sunu mag ñu baax ñi kon nañu bàyyi xel ne am nañu responsabilité wu gën a dolli proximité bi ci kër yi bañ cee xeeb kenn ak fenn ndax wolof yi danañuy faral di wax naan ku bëgg ndawal doo xeeb picc ndax lu bari ngay wut walla loo dajale te moo ne picc lam co yor mu néew mu bari la ngay wuti la kon bu ñu xeeb kenn ci sañcaan yi ci sa biir kër ngay tàmbalee ci leeral leen fi réew mi toll ak ki ko yore yéene yu baax yim ci am ak jëf yim ci jote jëf bu dee ci tuubaa macha allah lu li mu fi jëf ñetti nit ñi mu fi wuutu gannaaw boo dajalee at yiñ jëf yëpp xool bi mu fi nekkee ak léegi li mu jëf jëf yëpp mën naa jur jëf yooyu ci rafet ak baax ak yaatu loo xamante nii amal na askan wi yëpp njariñ te loolu mooy yéeneem ci biir kër diine yi mais loolu mooy yéeneem ci senegal ak fu fi dëkk nekk mu sori ak mu jege kon ku mel noonu boo koy jàppale li koy dimbale ba nit ñi xam ne mu ngi def dara ak fan la ko jëmee dafay mat nga koy leeral nit ñi loolu sëriñ bi ñoo ngi leen di tàllalaat loxo bëgg li des ci élection yi jàpp nañu ne bisu tey bi bu dellusee day fekk ñu nekk ci di waajal ngir dem incha allah dimanche le 31 juillet kon ni ngeen ko waxee rek fii li ngeen fi amoon wut leen leneen lu ngeen ci dolli xeeb am am bi ngeen amoon ba gañe jàpp naa ne dépa euh, région bu ne département bu ne commune bu ne village bu ne bu defee noonu zone yi aussi kom que Touba ci ay zone lañuy liggéey kenn ku ci nekk xool la nga amoon ngay lijjanti leneen lu ci dolli ko parce que am na ñoo xamante ni. mosuñu sax voté war nañ leen a seeti ñu wote am na ñoo xam ne daawuñu woote ci liste bi ñu seeti leen waxtaan ak ñoom yee leen tatagal leen wax leen lii tax bu ñu wootee ci lisi bi mu amal réew mi njariñ wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.